député taxaw na fi wax lu ñakki teggine teg ko ci sëriñu jambour te pourtant biñuy wax léegi ma tay nga wax waccal nga delu Je, je, suspends la séance. La séance est suspendue. Thank you.